édition spéciale bi lu ñuy waxtaanee xam nga ko conseil constitutionnel bi euh, joxe nañu décision bi nga xam ne moom la ñu doon xaar ci sept charges yi alors euh, du ñàkk nag ci kanam tuuti di nga laaj euh, président mu defal ñu le point parce que bëri na ci ay sénégalais yu nga xam ne nii sànq ba léegi ñu ngi may oo lan la charges yi joxe sept charges yi ban décision la ñu jël ban avis la ñu joxe certainement di nga di nga ko demandé mu defal ñu le point laata ñu dugg ci waxtaan bi Mamadou Gueye Gueye mu nuyoo a sóobu sóobu di nuyu Mambay Niang di nuyu président aussi mais di nuyu sénégalais yëpp je crois que tey jii euh, bés bu am solo la ci fi ñu nekk ak fi ñu jëm donc maa ngi nuyu sénégalais yi ñuy dégg di nuyu waa parcelle surtout. alors Bougane euh, da nga da ngeen yóbbu woon benn recours ci conseil constitutionnel euh, recours bi la moo ci nekkoon. lu ngeen sàkk woon alors li ñu demoon ci conseil constitutionnel mooy bi ñu gisee ay musiba ci mbirum parrainage Mansour Diop mi. sénégalais la électeur la mu parrainel coalition gëm sa bopp machine bi contrôler parrainage yi ne Mansour jóob mii du électeur te Mansour Diop am pièce d'identité Mansour Diop am numéro électeur Mansour Diop am lieu de vote lii pièce d'identité bii nga gis dafa bokk ci li ñu jox conseil constitutionnel ne ko diw mii lobe sekk mii numéro électeur nangam nangam sangam si conseil euh, commission électorale commission parrainage dañu ne du électeur et pourtant am na carte électeur conseil constitutionnel daal di rendre décision tey nañu je cite Considérant 8, d'une part, que les pièces produites par le requérant pour asseoir le caractère erroné des motifs de rejet de ces parrainages, duquel il déduit la défectuosité du système de contrôle, ont été établis par la coalition elle-même, ne comportant ne comporte aucune signature et occulte les noms et prénoms des parrains, dont la taille et le numéro de carte d'électeur sont contestés. que ces pièces ne sauraient faire foi contre le procès verbal de contrôle des parrainages établi contradictoirement par la commission et signé par le président de la commission conseil constitutionnel fen nañu ils ont menti isu kan ma ne isu mag bu fenee da nga koy wax ne fen na conseil constitutionnel fen nañ dañoo fen ay mag bu ñu fenee ngir dëxëñ njublang da nga leen koy wax ay ca euh, lii xaaral ma jox la xam nga lii du récépissé de dépôt bi récépissé de dépôt bi coalition gëm sa bopp jox conseil constitutionnel yow journaliste nga mango liiral jox nañu leen ay kayit yu ko firnde ou pas lii ra mhm. nga xool may ma ma la dañu leen jox ay preuve mhm. indil ma la mhm. ñoom ñooy bind de conseil constitutionnel ñoo bind lii jox ñu ñu ne élément de preuve contre les rejets pour taille non conforme élément de preuve contre les rejets na taille non conforme ñu ne jox nañu leen ñoom conseil constitutionnel élément de preuve contre les rejets pour motif non électeur liste de 142 électeurs sénégalais dont les parrainages au profit de la grande coalition Gëm Sa Bopp ont été rejetés par la DGE au motif qu'ils ne sont pas des électeurs alors qu'ils un numéro d'électeur, un lieu de vote et un numéro de bureau de vote dans leur commune. ma ne Mansour lii mooy ñun li ñu jox conseil lii fii li li njëkk a am solo te jaral leeral mooy parenage ni ñu ko defee ni ñu ko tëggee bii yoon ñaari discriminant lañu am maanaam ñaari fànn la ñuy saytu numéro électeur ak taille maanaam nu nit ki toll ñu ne boobu mooy discriminant bi numéro électeur ak taille boo bindee Mansour Diop mm, nga def ci euh, Mansoura Diop ak E du ko jël en compte parce que li ñuy contrôler numéro d'électeur la ak taayu nit ki moo tax d'ailleurs ci biir motif pour autre motif de rejet yan lañ ci dugal doublon taille non conforme ak non électeur mooy taille yu nit ki baaxul mooy am nga doublon walla non électeur gis nga ci motif yi defuñu ci benn yoon nom et prénom non conforme on est d'accord waaw kon bu conseil constitutionnel ñëwee naan ñu joxu leen ñu tur ak sant mais lay la ak fen la c'est des mensonges c'est des mensonges s'y ajoute s'y ajoute lii dafa nekk preuve ñun yi ñu leen jox ñoom waa conseil constitutionnel ñu ne la fii élément de preuve contre le rejet pour taille non conforme parce que ñaari élément la ñuy contrôler ñoom parrainage yi numéro électeur ak taille rek kenn waxul benn yoon ndax tur bi da cee war a bokk wala tur bi bokk ci amul mais ñun dañoo dem fu gën a sori loolu non seulement dañu leen jox comme ni nga ko gisee nii numéro électeur bi boole ci taille bi ñu ñu jox ñoom ne baaxul mooy gis nga fii un mètre cinquante la waaye boole ci photo carte d'identité ndaw si nga xam ne fii dafa jël taille bi ne la taay bi un mètre la te ñoom un mètre la ñu def ci taille ndaw si ba pare ñu ne la baaxul ñu won leen ne waa direction générale des élections waxuñu dëgg firnde ko jox la pièce d'identité carte électeur numéro électeur ñu jox la ginnaaw pièce d'identité bi firndeel ne lii moom mooy numéro électeur waaye yamuñu ca dañu dem wuti pièce d'identité ndaw si pièce d'identité ndaw si moo nekk nii lii mooy pièce d'identité ndaw si lii jox nañ ko conseil constitutionnel ils ont ça waaw suñu ñëwee taxaw def seen motif de rejet naan ñu turu ndaw si nekku si wala turu ñi ngeen di wax nekku si c'est des mensonges ay fen la ils ont menti et ils ont trahi le peuple sénégalais parce que dañu leen teg foofu pour qu'ils disent le droit tey suñu taxawee ne grande coalition gëm sa bopp joxu leen ñu ay firnde ci ay tur ak i nangam-nangam ma ne leen waxuñu dëgg mais est li ngeen joxe ci ay tur doy na par rapport ak li sa bopp euh, Mansour benn njuumte rek benn njuumte doy na ci wane ne seen vérification baaxul benn njuumte yamuñu ñun ci benn njuumte bu ci nekk dañ leen ci jox ay preuve ba noppi daal di jël beneen list gis nga liste bi cent quarante deux sénégalais la yoo xam ne ñun dañ leen jël xam nga trente mille mënuñu fa nekk ñun di vérifier lépp dañu jël au pif ñu jël trente six mille ci trente six mille yi ñu xool gis ci cent quarante deux yoo xam ne dañ ne duñu ay électeurs mi ngi nii rejet bi rejet bi taille non conforme la ak numéro d'électeur ñun ñu jox leen numéro d'électeur yëpp ci cent quarante yi yamuñu fa de boole ci jox leen commune ya gaa yay wotee jox leen lieu de vote ya gaa yay wotee waaye yamuñu ca dañ leen jox bureau de vote yi gars yi wote c'est ça la réalité leneen lu conseil constitutionnel wax lu dul lii ñun ñu leen jox ma ne ay fen la et boo gisee lii ñu leen jox nii moo tax ay numéro d'électeur moo ci nekk les cent quarante deux numéro d'électeur yi ñu tànn au pif moom la ñu leen jox nii parce que direction général des élections ci seen commission de vérification numéro d'électeur la ñuy contrôler ak taayu électeur bi xooluñu tur ba ndax ma nga ca walla déet kon ñoom li ñu ñu jox ñun ci loolu la ñuy wax ak ñoom waaye yamuñu fa nee naa la ñun yamuñu ci loolu dañoo dem jël ay pièces d'identité autant pour les non électeurs que pour les tailles non conformes léegi dama lay jox benn kii mu ngi tudd Adama fay fu mu dëkk mu ngi dëkk Saly Carrefour dañ ne du électeur kii dañ ne du électeur loolu la ñu wax waa léegi lii lii du numéro électeur numéro électeur bi ñu bind fii ñoom ne baaxul moo nekk ci pièce d'identité bi turu ndaw si mu ngi nii aadama fay la tudd mu ngi nii Adama fay moo nekk ci pièce d'identité bi. Mhm. moo tax ma ne nañ ñu wax ñoom lan lañ bëgg. mais mais yow nombre nombre bi nga bi nga wax bi nga leen wan comme ay éléments. Mhm. yuy leeral yow. nii li nga mhm. wax am na. par rapport ak ñoom nombre bi ñu la ni baaxul. est-ce que itam am nga temps ou vérifier 36 millions. waaw mais non justement ñun loolu du suñu ñun loolu du suñu du suñu prérogative suñu prérogative mooy mën a wane ne. yii ngeen jël ne da ngeen di contrôler li ngeen contrôler baaxul Mansour yow sénégalais nga waaw léegi bu nee la yow nekkuloo ci fichier électoral bi du problème pourquoi benn sénégalais bu amee benn problème ñu war a xaar un million de sénégalais di am problème yu ne toll alors que dans la situation actuelle ce qui se passe mooy contrôle bi conseil constitutionnel waroon a def la deful dañ ko jox ay numéro électeur ñoom waroon nañu dem ci waa direction générale des élections laaj leen copie pièce d'identité yi nga xam ne ñun dañ ko incriminé boo xoolee seen décision pare nañu samedi 21 la ñu pare oui mu ngi nii samedi pare nañu samedi génnewuñ ko dimanche génnewuñ ko lundi génnewuñ ko pourquoi parce que dañu nekkoon di tëgg deal avec les acteurs politiques. dil na. dil bi mooy ñenn ñi ñu jàppoon ne seen liste warul jàll faw ñu jàlle ko pour ñoom waa Benno Bokk Yaakaar seeni liste mën a jàll. et loolu ñoom waa conseil constitutionnel ñoo leen jàppale ci tëgg boobu c'est ça la réalité du leneen boo gisee démb ñun ñu génn def conférence de presse parce que yëgoon nañu ne. Mmh. lii dafay am. alors ils ont trahi les Sénégalais c'est ça la réalité bu leen neexee ñu yónni gendarmerie ñu ñëw jël si ma fii parce que li may wax dama am ay preuves tangibles ñoom conseil constitutionnel bu ñu sañee taxaw jàkkaarloog sénégalais yu mel ni ñun ne ñu joxu leen ñu ay preuves waxuñu dëgg il faut pas ñuy nax sénégalais yi defoon nañ ñu ma ko deux mille dix neuf ma ne teg booba maa ngi doog a dugg ci daara ji mbabba daara laa woon di jàng fi mu nekk nii nag xam naa yoon bi xam naa nes koy defee moo tax rendi gii ñu ñu bëgg a rendi du yomb ci ñoom Macky Sall ak ñi koy dimbali ci liggéey bi la preuve aujourd'hui c'est des éléments yii ñu leen jox conseil constitutionnel bu ñu nee joxuñu leen ay tur waxuñu dëgg kon da ngaa jàpp ne yow Bara yëgoon quoi bëgg leen sacrifier mais mais c'est la yeneen liste mais mais Mansour y a pas de doute à ce niveau l'objectif est très clair c'est de bare la route à la grande coalition gëm sa bopp. mais du gëm bopp donc la ñu barrer. mais non justement fi mu nekk nii ñun liste la woon huit ñoo jàll sept yëpp fi gëm sa bopp à la limite ñun ñoo sonal ñeneen ñi ci des. c'est la coalition qui dérange. c'est la coalition qui dérange Mansour nit suñu borom sax borom xel yi lay waxal ñun bi ñu ñëkkee dem élection bi ñu ñëkk dem élection. dañ ñoo njëkk a téye présidentielle ñu ñëw ci élection yii élection locale ñu ñu yoxal ñu bàyyi ñu ñu dem ñu bàyyi ñu dem ñu gis ne def nañu jaroore ñu am deux cent vingt deux mille voix ci ñoo xam ne ñu ngi doog a door deux cent vingt deux mille voix jël troisième dans la région de Dakar troisième dans le département de Dakar deuxième dans la ville de Rufisque troisième à Guédiawaye troisième à kër Massar troisième à Pikine dans plusieurs localités ñu jël fa deuxième nekk ci trois cent deux communes élection législative yi xam nga ñaata département lañ nekk quarante trois départements sur les quarante six kon teewaayu gëm sa bopp nettut lu ñuy na natable gëm sa bopp mën naa am parrainage wala mënul am parrainage loolu féete na boor parce que ñi ñu voteel dakaar donc soixante seize mille la ñu Mansour. am na coalition yu jàll ma ñëw def nga ne am na doole egg na. am na am na coalition yu jàll. ci parrainage bi. ñoo xam ne bi ñu demee élection locale ci Sénégal yëpp amuñu cinquante mille voix te am nañu cinquante quatre mille parrainage mu jàll. ba ñoom ñu mën a jàll. am na ñoo xam ne ci faar yi gëm sa bopp la ñu ko matul fukki fan laata ñuy dem ci parrainage bi Macky Sall jox leen xaalis. jox leen i oto pour ñu wër réew mi. ronki ñun suñu ay militants waaye ñooñu yéen xamu leen leen. ce que je ce que je dis. kon Macky Sall liste boppam. non c'est que communiqué bi ma def démb. dama ne makki Sall dafa tànn ay tokaar. oui oui dafa tànn ay tokaar ni mu defee woon 2000 tu sais l' esprit simple ne cherche pas loin il puise toujours dans le registre des souvenirs vécus li mu defoon 2019 ci loolu la nekkaat seet ñoo xam ne ay tokaar lañu waaye am nañu tur mën nañ leen jàppandi ci wax ñu boole leen ci mbir mi cette opposition bi wàññi seen doole dogot dogotee ko boole leen ci mbir mi pour ñoom ñu mën a gañe mais li am solo mooy pour revenir sur la décision du conseil constitutionnel lii ñu ñu wax fii ci considérant huit bii je dis et je répète ce sont des balivernes c'est des mensonges pourquoi c'est des mensonges parce que nous avons produit tous les documents yi attesté que logiciel bu vérification de contrôle des parrainages logiciel boobu baaxul et loolu yamuñu ca ñun jël nañu lii jox ko représentation diplomatique yépp yamuñu ci wax ko donc dañ ko documenté jël ay pièces d'identité boole ci waa pièce d'identité bii nga gis Mansour xoolal pièce d'identité bi xaaral ma jox la benn pièce d'identité nga liir liiral sénégalais yi ndax pièce d'identité bii am na tur wala amul tur am liiral wax ñu ndax pièce d'identité am na tur wala amul tur. Adama Faye waaw. Adama Faye moo ci nekk. waaw léegi ñoom ci seen motivation ñu ne éléments yu ñu produire ne comporte aucune signature et occulte les noms et prénoms des parrains dont les tailles d'électeurs sont contestées ñun DGI DGE direction générale des élections ñoo ñu jox document PDF. bu 926 pages 926 pages page bu nekk am 41 personnes ça fait 36 600. waaw 36 600 ñun mën nañoo toog di ko tànn ceeb benn bu nekk ba mu jeex mën da nekk li ñu xool ci njëlbeen nga moo wane ne njublang am na li ñu gis ci njëlbeen nga moo wane ne njuumte am na njuumte googu ñun ñu dem fa mbaxane doone benn pour ñu leeral ko mais malheureusement on a affaire à des gens yoo xam ne Macky Sall la ñuy liggéeyal parce que Macky sàll li mu bëgg mooy Bougane Gueye moo koy déranger Bougane Gueye mooy problème mu Macky Sall mais na gëm yàlla te xam ne mais Bougane lu tax nga xooloon nag tey yow dong la ñu rejeté mais am na yeneen coalition yi ñu rejeté ñu rejeté man ah man dong maa ci am huit cent man dong maa ci am huit cent euh, Euh, nu ngi koy waxee di conseillers municipaux ñi ñu rejeté man dong maa ci gagné six communes ñi ñu rejeté man dong maa ci am deux cent vingt deux mille voix mu bir la ne ñii seenu bokk ci élection dafa waroon naturel. léegi tey tey bu ñu ñu rejeté ñun mais c'est deux cent vingt deux mille voix yoo xam ne ñoom ñu ngi koy wuti ñu ngi koy daagani parce que seen objectif mooy. li ne fang kenn mënu koo jeex et ñoom les politiciens professionnels tey dañu def deal ci kanamu askan wi ku ne xam na ne muy Benno Bokk Yaakaar ak yeneeni coalition wu opposition ku ci ne def nga sa njombe ba taxaw yow ci sa bopp yenn ci kilifa taxaw ne ñoom juum nañu ci seeni liste mais c'est dommage que tey ñu nekk di deal sur le dos des sénégalais. may jël ma jël bokk na ci ñi nga xam ne aussi dañuy rejeter seen seen liste euh, Fadel maa ngi lay nuyu. allo Fadel Baro Fadel Baro.